asalaamaaleykum mbokki internet yi ni ñu ko waxee sànq rek euh, ba moo di ci géejawaay fii nga xam nag moom euh, euh, bi ci rond point bi bu mag boo xam nag fi la waa jàpp si plateforme bu yees boobu nekk ngir nag jàppale ndaw yi jàppale jigéen ñi jàppale mag ñi jàppale ñëpp ñi nga xam te ñu ngi yow fii ci xëpp Sénégal ku wax plateforme bi nag di nga wax ñi nga xam te mooy les responsables ginnaaw bi nga xamante ni dégg ngeen Euh, les différentes présentations yi nga xam ne def nañ ko ak euh, ñaar ñu leen tuddal sànq di euh, kii rek di Pape amadu Ba ak Talla Sow tey ñu ngi ci ki nga xam ne moom lañ ko gàll dénk ko ko di Seyni Ñing ngir nag gën a xóot ci waxtaan wi seq ak moom ak laaj ak tontu ngir askan bi jëriñoo ci jot information bi wër ngir mën a ñëw jàpp ci projet bi damay def rek loolu dalal ko nuyu ko maa ngi lay nuyu ki nga xam ne moom moo di Seyni Ñing. waaw Doreen maa ngi lay fay ah, voilà tey ñi ngi fii ci sa mankaan ci siège bi nga xamante ni euh, fi ngeen di liggéey yow ak ndaw yi nga ko seqal ak équipe bi nga àndal euh, tey jii ngeen yore plateforme jàpp si jàpp si tey jii boo ci doon euh, dikkal présentation bu ndaw rek ci bref ci tënk lan lañ lan lañu mën a tënk tuddee jàpp si. voilà merci beaucoup ci sa question di rafetlu bu baax ci question bi alors juste rek bu ñu leen daan wax jàpp si jàpp si c'est une plateforme numérique boo xam ne dafa regrouper ay entrepreneurs. un pour partout dans le monde euh, la majeure partie ñu ngi ci diaspora bi mais aussi am na ñoo xam ne aussi ñu ngi Sénégal dootu ñu ngi ci sous région bi alors lu ko tax a jóg mooy tey jii dañoo créer benn modèle économique boo xam ne tey jii ñu ngi tudd jàpp si ñu def ko utiliser xarala yu bees yi muy nouvelle technologie def ko de telle sorte que ni tey jii euh, lépp looy ut étant entrepreneur ci wàllum encadrement muy formation ci wàllum aussi tamit coaching ci wàllum aussi tamit investissement wala accompagnement loolu yëpp da koy fekk ci plateforme maanaam mun nañ wax ni rek ni réseaux sociaux la boo xam ne c'est destiné pour les entrepreneurs ñi nga xam ne dañoo bëgg a renforcer wu aussi ci wàllum capacitation concernant les chefs d'entreprise wala le personnel lépp luy ut ci wàllum entrepreneuriat daal boo ñëwee ci plateforme bi ko ci fekk. ma ne kon su ma la déggee ci tënk rek mooy tey am ngeen li nga xam moo di ay filière ay euh, présentation wala bokk ay ay ay hmm, domaines yu wuute bokk na ci formation emploi ak entrepreneuriat. tout à fait alors ci biir loolu nag bu ci nekk xam naa dinañ ci yaatal comme par exemple la formation dañ ko def de telle sorte que moo xam da nga jàng doon étudiant wala jàngoo ñun dinañ def de telle sorte que ni li nga soxla comme compétence ñu def ko ci yow wutal la attestation bu fekkee ni da nga teel a bàyyi sa jàng tey par exemple mun nga doon informaticien wala nga yëngu ci infographie nga bëgg a gañe ay marché amoo diplôme boo ñëwee fii ci peu de temps pour une courte durée dinañ la def ba tey ji dinga am attestation bi wane ni am nga expertise bi pour mën a bénéficier wu ci ay marché yoo xam ne mun nañ ko gañe à ton wala ñu gañeel la ko avec nos partenaires voilà ci wàllum ci wàllum emploi aussi Euh, tey jii par exemple dañoom ay partenaires yoo xam ne parce que récemment def nañu recrutement pour soixante dix personnes te dinañ dem au delà des soixante dix personnes c' est juste un début pour rek wane suñuy preuve que ni dañ fi nekk pour gunge jeunes yi yoo xam ne chercheur d' emploi ñoo xam ne tey jii amuñ expertise ñu def ba ñu am expertise mën a daan seen doole ci dëkk bu ñuy nekk te loolu moo nekkoon objectif bi ci wàllu entrepreneuriat nag dafa laaj ay volets yu bëri parce que sànq rek ci biir waxtaan. Euh, maa ngi ko dem wax ci agent ak commerciaux yi ne leen entrepreneuriat aajowul aussi moyens yi di bëri mais dafa laaj coaching dafa laaj encadrement bu lay permettre que ni tey jii une fois que ñun ñu jox la xaalis booy liggéey wala nga am jumtukaay pour liggéey dina doon faci facilité pour nga mën a réussir volet. Euh, liggéey bi koo gis xam ne du yomb euh, dina diis ñan ñoo ciy gën a jàpp liggéey bi. alors boo seetloo nag ñi ci gën a jàpp maanaam dañ def de telle sorte que ni nga doon membre rek. yow déjà jàpp nga ci parce que da nga jënd sa carte carte yi selon localité bi nga nekk da lay prix bi muy Afrique muy Europe le fekk nga ñëw contribuer sa xaalis rek jàpp nga ci parce que on di dit développement participatif permettre aussi l'ensemble des Sénégalais ñu mën a euh, participer ci développement wu seen dëkk loolu moo nekkoon objectif. mu mel ni euh, plateforme bi euh, bees na waaye xaw na yàgg tuuti bi mu dooree liggéeyam. ndax mën nañoo jàpp ni am na résultat yoo xam ne naa am. ah oui bien sûr am na ay résultats parce que plateforme bi rek c'est un projet juste de la société jàpp si parce que c'est une société tey jii am nañ projet ci wàllum agriculture am nañ projet ci wàllum aviculture am nañ projet ci wàllum aussi élevage mais tey ji dañ def ni tel ji tel tel point que ni comme xarala yu bees yi il faut que de telle ñu def ko pour mun a am visibilité ñu jël premier projet def ko muy xarala yu bees yi mooy plateforme bi boo xam ne tey jii dañ boole ay sites yu bëri def ko sous forme de plateforme moo tax ça nous pris du temps on a fait deux ans pour le réaliser waaye tey aujourd'hui macha allah alhamdulilah. macha allah ñu ngi géejawaay te ku nekk xam ne ni eh, géejawaay rek du Sénégal eh, ndax mën nañu jàpp ni eh, ndorteel la rek ngir ñu gën a nekk gun fii au niveau la banlieue mais ñu ngi koy séentu xëy na ci yeneen diwaan. bien sûr euh, déjà bëgg nañ dëkk bu nekk am antenne te géej géejuwaay fii nii sax boo seetloo bureau annexe la parce que suñu bureau mi ngi nekk Djily géej géejuwaay annexe la boo xam ne dañ ko def pour être beaucoup plus près de la banlieue pour permettre que ni jeunes yi nga xam ne dañoo teel a bàyyi jàng ci banlieue bi ñu mën a bénéficier wu sur des formations attest yoo xam ne day ànd ak attestation yu wane seen qualification ci peu de temps la donc euh, xanaa rek euh, pour ngir tàggatoo tey jii boo doon joxee message ak li nga xam ne bëggoon nga ko waxtu woo ko lan ngay alors euh, li may li may jeexalee rek mooy que ni fu jeune nekk ci Sénégal que aussi au niveau de la diaspora ci sous-région bi jàpp si est la pour que permettre yow mi jeune doon entrepreneur war nga am projet boo xam ne da ko envisagé woon au Sénégal nga ñëw boole sa projet boole sa doole. ñoom investir ko parce que ñu bëri dañuy bëgg investir au Sénégal mais amuñu sécurité côté investissement souvent da nga koy jox sa cousin bu ko luubalee tamit doo ko yóbbu police wala nga jox ko sa mbokk bu ko luubalee aussi doo ko yóbbu police mais bu fekkee ni da nga signé partenariat avec jàpp si ñun ñooy jouer rôle intermédiation ba loolu yëpp. tey jii du doon problème dinañ la mun a gérer sa personnel dinañ la mën a gérer sa côté gestion ba tey jii li nga bëgg ci projet bi di nga ko mën a am ci wàllum visibilité ci wàllum aussi tamit rentabilité. merci beaucoup maa la gën a kontaan. ma ko di yoon seen i ñi mi nga xamante ni euh, moom mooy responsable bu jàpp si fii li nga moom moo di ci Sénégal ñu nekk fii ci Guédiawaye euh, soxal euh, plateforme bu yees boobee c'est un message solennel boo xam ne aussi. Euh, lancé nañ ko également à tous les euh, fils du pays yi nga xam ne euh, ailleurs partout dans le monde war am investissement ñu def fii au niveau du Sénégal war a mën cee jàpp donc je pense que tey bu gisee plateforme bi ñoom aussi duñ tiit ni mu ko waxee sànq contrat de confiance bi fi am ak transparence bi ak bon gouvernance bi ñëw nan la doxal ci seen projet yi je pense que aussi da nekk une porte ouverte boo xam ne di ngeen ci mën a jaar ngir ñëw jàpp si ici indi seen investissement mais également au niveau du fii ci réew bu Sénégal yéen ndaw yi ay amee projet seen soxna yi nekk ci groupement féminin yi ak mboolem yi nga xam ne moo di kuréel yi nekk fii ci réew bu Sénégal te ku ñëpp bëgg a jug am euh, lu ñu yëngu ci wàllum koom-koom jàpp si ubbi nay buntam euh, banqaas yi lawal na ko fépp jili mbay ak fii te nam ma dem fépp ci biir réew bu Sénégal ci gox yi fasantikoo kon message bangook bàyyi leen ko xel euh, bu kenn toog te di nelaw jeex na le savoir et le xam-xam ak liggéey lépp mu ngi fii ci jàpp si ak cette nouvelle plateforme gars yi ñoo leen ngeen jàpp si Sénégal jëm kanam àdduna bi dox ñu dem ànd ak moom jaa ngeen jëf merci beaucoup